ginnaaw ban sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonantaam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ñëw nañ ci seen tafsirul quran ci seen télé bu am solo bi di muslih tv ñi ngi nuyu ñépp ñin fi fekk di liggéeye ci kër gi yàlla na yàlla sàmm leen barkeel seen dund tey ñu war a tàmbalee incha allah suñu tafsir bu njëkk ci suuratul fatiha ñu war a e, firi tey e, saar wi nga xam ne doonte ndaw na ci jëmm waaye ëmb na lu baree bare baree baree bari e, moo tax ñu war ko tàmbalee tey incha allah moom suuratul fatiha di saar woo xam ne saar wu am solo bokk na ci ay solom rekk mooy jullit bi su jullee te tariwu leen julleem du baax bokk na ci solom mooy saar wi ndeke saafara la lu waaye di wur wër ci saafara faatiha moom moo ci gën a gaaw euh, moom faatiha saar la woo xam ne mi ngi wàcc Makka am na ñu ne mi ngi wàcc Madina loolu wax ju néew la wuteeg waxu mbooloo mu baree baree baree bare ala kulli xaalin moom saar wi am na juróom-ñaari aaya juróom-ñaari aaya la suratul fatiha am euh, ci li ëpp ci waxu boroom xam moom suratul fatiha dinañ ko woowee fatihatul kitaab ndax tijji gi mu tijji téere bi di alquraanul karim dinañ ko woowee ummul quraan walla ummul kitaab ndax moom mooy cosaani alquran ndax moom mooy yaayu saar yépp dinañ ko woowee sa sabul masaani ndax juróom-ñaari aaya yi nga xam ne moom la am moom fatihatul kitaab borom bi subhaanahu wa taala mi ko tàmbalee ci tagg boppam ci wax ay turam ay turam yu rafet ak ay melokaanam yu mat waaye di ko demee ci biir saar wi dinga fekk mu fay joxe ay leçon wu tawxid yu am solo yoo xamante ne jaam bi ci la war a tënku waaye mu jeexale saar wi ci ay ñaan kon nga xam ne moom fatiha ñetti pàcc yooyu mu am bu ci jullit bi jaaree bu ci ñaanee ay soxlaam borom subhanahu taala daf koy nangu moo tax mooy saar wi nga xam ne nee na même yonent yu jiitu woon am nañ ko moom fatiha nga xam ne kon moom exception la ci li nga xam ne mooy saaru alquran yépp kon te saar la woo xam ne rëy na lool saar la woo xam ne li ci boroom xam-xam yi wax bari na torop torop torop waaye ñun dañ leen koy tëngal ci ngeen xam maanaay ci kaw ndax li mu ëmb bari na lool ci ñi nga xam ne def nañ tadabburul quraan settantal nañ aaya yi settantal nañ alquraan settantal bu wér kon saar wi borom subhaanahu wa taala mi ngi ko tàmbalee ci turam bi ñuy wax allah teg ci arrahman ak arrahim nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla am na juróom-ñeenti fukki tur ak juróom-ñeent mooy téeméer bu manqué benn mu ne ku ko mokkal dangay dugg aljanna boroom xam-xam yi ne mokkal gi mooy saa tur wu nekk la muy tekki nga jéem a euh, doxee ci doxin woowu boroom subhaanahu wa mu ne bismillah ci tur yàlla ibtidaa yi mooy sama tàmbali kon lu nit di def yonent bi nee na lu nit di tàmbali te tàmbalewu ko tur yàlla loolu du barkeel moo tax lu nit di dugg na fexe mu duggee ko ci bismillah na fexe bu ciy génn mu génn ci alhamdulillah comme ni ko nit ñi di waxee bismillah ci turu yàlla bi ñuy wax allah ci lay tàmbalee samay wax ci lay tàmbalee samay jëf allah mooy turu bi nga xam ne yàlla rekk moo ko tudd boo dindee alif bi mu des lillahi ma fi samawati wa ma fil ard nga dindi beneen laam mu des lahu mulku samawati wa ma fil ard nga dindi waat laam mu des huwa allahu allazi laa ilaha illa huwa kon mooy tur wi nga xam ne xaraf boo ci dagg sens bi du changé maanaam day des di am li muy tekki arrahman mooy buur bu fees dell ak yërmande nga xam ne mboolem mbindeef yi ñi ci suuf ak ñi ci géej ñépp ci lañ xaj arrahim mooy buur bi yërëm ñi ko gëm ci àdduna ak ci àllaaxira kon aaya bu njëkk bi mi ngoog tàmbale ci turu yàlla moom mi nga xam ne moo tudd allah moo tudd arrahman moo tudd arrahim alhamdu cant yi nag lillaa ñeel na yàlla te muy cant xaaju ñeenti cant yépp borom bi subhaanahu wa moom moo ko moom alhamdu mooy ashukru ñaar yépp ñoo bokk li ñuy tekki waaye wute nañu tuuti kon yonent bi nee na ku dul sant nit ñi doo sant yàlla kon ñu déggee fa ni mën nañ sant nit comme niñ mën a sante yàlla ndax nit ñi dañ ñuy defal lu baax rabbil alamina mooy borom mbindeef yi arab bu waxee al aalam rek mooy monde lay tekki al aalam kese mais su ko defaatee beneen pluriel day wane ni monde yi dañoo bari te dañoo wute ndax am na aalamul jinn wa aalamul ins wa aalamul uh, arwaax am na monde boo xam ne ruux yi kese ñoo fay daje am monde boo xam ne doomu aadama yi ñoo fa nekk am monde boo xamante ni monde jinne yi la yooyu yépp nag boo ko boolee mooy ala aalamin yàlla moom moom lépp moo tax mooy buur bi yeyoo jaam ku ko fi bàyyi di jaamu leneen yow ku am fit nga ku ko fi jaamu ku ko fi bàyyi di jaamu leneen yow dañ naan danga réere mbir xamoo li xew kon rabbil aalamiina mooy borom mbindeefi arrahman moo fees dell ak yërmande arrahim mooy yërëm ñu ko gëm ci àdduna ak ci àllaaxira gis nga répété na baatu rahman ndax buur la boo xam ne bëggul mbugal kenn kon jaam li buur bi di bëri yërmande li buur bi di yërëm jaamam yi di leen woo guddeeg cëg ngir jéggal leen waaye ay dumaam tamit noonu la méttee ni mu mënee yërëmee noonu la mënee duma moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu ñetteelu xaaju guddi gi jotee mooy bu fajar di waaju dugg si yàlla dafay wàcc nee na ba ci asamaan bi tiim àdduna ci nim yelloo ci ak wàccam wàccam gi muy wàcc nag kenn du wax nii lay wàccee comme ni nit di wàccee waaye ni yàlla di wàccee ak màggaayam mu naan sama jaam yi kan moo may jéggalu ma jéggal la kan moo may ñaan ma sàng la ma sàng la kan moo may ñaan ma wërsëgal la ma wërsëgal la waaye jamono boobu mi ngi fekk ñi sàggan ndeysaan ña nga bokkatu di nelaw seytaane di leen dooleel ba duñ jot a ñaan période boobu muy waxtu woo xam ne wu nangu ñaan la waxtub nangu ñaan la ndax moom mooy arrahman moom mooy arrahim malik yawmiddin mooy buuru bisu penc bisu penc lu fa waay yaakaar loolu mënalu dimbali ci kanamu yàlla dara ndax yàlla nee na man maay dimbali jaam yi foofu maa leen di xettali maay dugalaate aljana maay dugalaate safara kon moom mooy buur bi nga xam ne mooy buuru bisu penc yàlla nee bu ñépp faatoo tëdd kenn du yëngatu muy taw seen kaw naan leen limanil mulkul yawm kan moom moom nguur tey kenn du nangoo tont kon bu ne mooy buuru bi su war nañ ko gëm ndax moom mooy rey te moom mooy dekkil donte am na ñuy weddi sax dekkeem gi ne dekki moom amul waaye bind nit moo gën a jafe bindaat ko kon dekki gi moom lu wér la iyaaka yow dong yow kese yow kott naabudu la ñuy jaam wa iyaaka te yow dong nastaciinu la ñuy sàkkoo ndimbal kon yàlla yow kese la ñuy jaamu yow kese la ñuy sàkkoo ndimbal fii tawxid bu wér la bu leer naññ moom moo fi feeñ ci aaya bi mooy yaa ngi wan ni yàlla yow kese yaa fi nekk lu problème rëy rëy rëy yow dong yaa koy dindi lu jafe-jafe yàgg yow rek yaa koy teg teg lu feebar tëw a faju faj yow dong yaa ko mën a faj iyaaka yow dong yow kese naabudu la jaamu wa iyaaka yow dong nastainu lañuy sàkku ndimbal dina yàlla nag ñu jubal yow yàlla assiraata yoon wi nga xam ne almustaqima yoon wu jubla ndax yoon yi bari nañ woote bi bari nañ te yoon wu nekk boo fa demee dina wuteeg beneen yoon ba lañu nekk waaye siraatal mustaqim nag mooy yoon wi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu nekkoon mooy yoon wi nga xam ne alxulafa arrachiduuna fa lañ nekkoon te mooy ñeenti xalifa yu baax yooyu abu bakrin wa omar wa usmaan wa ali ak mboolem saxaaba yi nga xam ne ñi ngi doon dund ak yonent bi ak mboolem nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw ak képp koo xam ne soobu nga yoon mboobu ba bisu pénc di taxaw ba benn yoon woowu moo fi nekk jëm ci yàlla moo tax fu la nit mën a woo mu wuteeg yoon wi bàyyi ko ndax fam la jëmee du foof lu la nit mënta dikk lu wuteeg yoon wi jàppal ni dig boobu amul njëriñ ndax yoon wi dong moo jëm ci borom subhanahu wa moo tax mu ne assiraata yoon wi nga xam ne almustaqim yoon wu jub bi la kon yàlla nañ yàlla musal ci yoon yu dëng yi te bari lool siraatu alladina yoonu gaa yi nga xam ne ana amta xéewale nga alayhim ci ñoom xéewal gi mooy may nga leen jub ñii nga def leen ay yonant ñii nga def leen ay nit ñu baax ñii nga def leen say soppe ñii nga def leen ñu nekk say nit yow yàlla yàlla nag ñu may yoonu gaa yooyu ñu topp ko gayril maghdubi yàlla boo ñu boole ci ñi nga mere te mooy ñi nga xam ne dañoo jàng ba ni ar ba pare duñ ko jëfee alayhim ci ñoom wala dollina yàlla boo ñu boole ci ñu réer ñu réer mooy ñi ngi góorgóorlu di jëf waaye lañuy ñuy jëf xamuñu ci dara boole laajoon atte yi mënuñu la kaa wax kon yow borom subhanahu taala yàlla boo ñu boole ci groupe gaa yi nga xam ne dañuy jàng ba pare te luñ jàng duñ ko jëfee waaye yàlla boo ñu boole ci gaa yi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu di jëf waaye lañuy ñuy jëf xamuñu ci dara kon yàlla nag ñu boole ci ñi nga xam ne ñi ngi jàng ba pare di ko jëfe te dañuy wax ne al ilmu qabla al qawli wal amal xam-xam moo jiitu wax ak jëf xam nga ku defar bomb kenn ëpp ko xam-xam waaye xam-xamam boobu fu mu ko jëmee baaxut ndax daf ko defar ci liy lor doomu aadama yi te yàlla sàkkul mbindeefam yi ngir ñu leen di lor kon mbokk yi ci tënk faatihatul kitaab mi ngi noonu euh, firi bi gaaw na fasu na waaye li nga ci bëggoon rek mooy ngeen xam baat bu nekk lan la ci borom subhanahu wa jublu kon suñu tafsir bu njëkk tey di suratul fatiha incha allah dinañ ànd ak yéen ci tafsir yi euh, ayu bis bu nekk ba alquran li ñu ci yàlla may ñu jël ko incha allah yàlla na yàlla defal ñu ñu tijjee ko ci jàmm yàlla yàlla defal ñu ñu tëjee ko ci jàmm yal na yàlla defal ñu ñu firi kaamil bi ba mu jeex tàkk ci anam boo xamante ni bu yàlla gërëm la ci anam boo xamante ni bu sell la te yàlla rekk tax ci anam boo xamante ni yàlla bu ci ngista lu rax ndax su boobaa du am benn njariñ dañuy sonn di wax di jël suñu temps di dox di sonn waaye duñ fayeeku li borom subhaanahu wa taala di wax aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya nee na am na ñoo xam ne dañuy xëy di dang-dangi ci àdduna sonn lool ci àdduna mboolem jafe-jafe tegu ci seen kaw yàlla mu ne bu ñu faatoo ma yokkal leen beneen coono te mooy dugal leen safara xam nga li gën a métti loolu amul kon yàlla na yàlla musal ñu ci yooyu yàlla na yàlla sellal liggéey bi yàlla na yàlla barkeel kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax hada wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu